asalaamualeykum waa Thiès kaay ki Thiès maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ni dama amoon émission bu ñuy wax kaay ma woneel la tey nag fi ma nekk duma ko wax kenn xam naa ku ko xool rek di nga war a xam fi ma nekk fan la maa ngi nii ci mbëkkante ci kan maa ngi nii ci boutique gu saw ñu koy wax Aliwa portable macha allah soo fi ñëwee qualité marque fii la fekk baax Samsung mi ngi fi Nokia mi ngi fi ak leneen loo xam ne macha allah mi ngi ci biir boutique bi. Aliou Sow dafa jóg pour jàppale waa Thiès dara ñoro ko lu dul waa Thiès xam na ne li ngay wuti dakaar di ko wuti feneen mu nga fii ci butigam mu ñëw nag ñëw ba mbëkkante daak ko fi xam ni sama gars yi fii lañ logé ci mbëkkante lu ñuy wut lu ñu am fii lañ koy amee ci mbëkkante mu ne leen kaay leen amul paas amul dugg oto ñëw leen yem leen fii ci man li ngeen bëgg ma jaay leen su ngeen génnee jaayaat ko li ngeen ci teg yéen ko moom def leen seen poche macha allah Aliou Sow jàppale waa Thiès koo jóg waaye bi ma duggee ci boutique bi li ma fi fekk daf maa gën a neex lan laa fi fekk tubaar fa kàlla gérant yi ma fi fekk am na nañu yar am nañ teggin mën nañu accueillir nit soo ñëwee boo bëggul a jënd sax di nga jënd ndax niñ lay def tubaar fa kàlla bi ma fi taxawee léegi li ma gis ah tukkal na àdduna waaye loo xam-xam ma demb ma demb gën laa xam boppam dafa am ku ma taxaw ak ah ci boutique bi kenn la ci gérant yi il faut ma laaj ko moom lan la sentir bi mu ñëwee ba Thiès loge fi ah lëkkaloo waa Samsung ak waa Nokia. asalaamaaleykum. maaleykum salaam kontaan trop trop trop tey jii ci ñëw bi ngeen fi ñëw quoi ah kontaan trop ci ñëw bi ngeen fi ñëw franchement lii moom mbégte la quoi ak collaboration bi nga xam ne am nañ ko ñoo ngi koy. tambalé am ak yeen quoi yeen wa ties Prestige té ñepp xam leen ci dëkk bi li ngeen def rafet lool waaw tay nak mom ñew ngeen euh, seen kër muy euh, alwar portable waaw alwar portable nak di bokku ci partenaire Samsung yi ak Nokia yi ñi nga xam ne man ma leen fi représenter fi ni ñuy wax euh, ñu leen wax ñooñu Ridington Sénégal ñom ñoy importer Samsung ñom ñoy importer Nokia waaw depuis bobu nak biñ biñ santé ba légui ñun ak ñom ñu ngi liggéeyee nag waa Alwaar liggéey bi rafet lool lépp luy Samsung fii authenticité bi ci ñun lay jógee muy Nokia ci authenticité bi tamit ci ñun lay jógee waaw am na yeneen am na yeneen partenaire nag waaye tamit Alwaar ci ñi gën a ràññeeku ci la bokk quoi moom nag ak kii bi mu ngi fii nii adresse bi mu ngi euh, marché mbëkk en face mbëkkante bi marché central en face mbëkkante bi avenue Niania Sow bon tey nag li ñu fi andi woon lenn la muy euh, ñaari produit phare boo xoolee yooyu la ñuy wax les brand international brand quoi ci anglais manam ñooñu fo dem ci aduna da nga leen fay fekk bokkut tak yi nga xam African brand la quoi fi lay yam en Afrique bon à savoir le champion biñ doon wax Nokia no champion bobu nag dafa defaat retour quoi kon donc mën nañ wax le retour du champion mais téléphone yi da cee ñëwewaat benen facette li ñi wax Android donc Android bo xolé fi ne mom mo lëmbee aduna bi à part iOS ak version iPhone yi quoi légui bon actuellement li ma timni ay euh, modèle yu bess la yoo xam ne HMD Global Oil en partenariat avec Ridington Sénégal ñoom ñoo ko def ci marché bi muy les Nokia bi nga xam ne système bi Android One lay doon quoi bon kon bu ma mënee tàmbali ci ci présenter leen téléphone yi nga xam ne moom leen teg nii yi nga xam ne ñoom ñoo dernière génération kon donc mën naa tàmbalee ci entrée de gamme quoi waa dafa am téléphone li ñu wax entrée de gamme am milieu de gamme am haut de gamme quoi. yëkkati ko ci kaw sama gars yi mën koo gis. waaw bii nga yor mooy ban. waaw kii mooy C2. waaw kii moom mën na mën na concurrencer ak téléphone bu ne parce que liñ ci soxla yëpp li nekk euh, actuellement au diapason moo nekk ci téléphone te téléphone bi cherut kii la ñuy wax c boo xoolee écran bi 18 point 9 la quoi display. gis ngeen C2 nee na. nee na yeneen marque yóbbu luñ ko dara gëm naa ko. nee naa leen fi taxawé ak légui lima fi gis ñi dugg ak di génn ku fi amul won satisfaction do fi ñew li la néna bima yor moy légui ñewal ci ma xol ci yeneen ñi. waaw C2 bi dama bëggono xus tuti rek. ay ca ñëwal waaw C2 bi dafa am lu ñuy wax 4G. 4G wa xam nga actuellement 4G mom mo nek au top 3G presque utiliser utilisé tu ko. léegi boo xoolee dañ na la batterie bi 2800 ampères la all days life manam mën nga di ko utiliser toute une journée bo xolé écran bi tamit. 18 point 9 la quoi display maanaam dimension écran bi te ci kaw dafa am lu ñuy wax protection Gorilla Glass Gorilla Glass nag mooy waral bu téléphone bi daanoo du toj du def dara mën na def suite bu ne quoi. Ah, waaw noonu noonu la demee te mémoire bi tamit 16 giga la te tamit prix bi abordable na quoi. waaw léegi sama gars yi da nga leen di baaxee prix bi yow tamit. waaw prix fii moom ku ñëw mën nañ la koo jaay 48000. dégg mille waaw 48000 mën nañ la koo jaay am nga 4G am nga lépp. Mhm. tout ñëw leen fii. ay ca ñu waaw léegi kii tamit mooy c'est un entrée de gamme maanaam dañoo bëgg ñëpp am accessibilité ci téléphone yi quoi. moom 16 giga la mais dafa am ñaari ñaari façon couleur quoi bii boo xoolee jigéen ñi ñoo koy gën a bëgg moom lañu wax red waaw am boo xam ne charcoal lañ koy wax quoi mooy black bi en anglais waaw booy 16 giga la RAM moom it prix bi yomb na da koy am ci 37 000 francs bii tamit moom la ñuy wax 2.3 quoi bii boo xoolee bi mu génnee yàggul. Mon euh, mémoire de 32 giga la RAM de 2 vous design bi design bi ni ko just keeps getting better Madame téléphone bi téléphone, soxla rek batterie bi 4000 mAh. la maanaam moom utiliser jours Si vous regardez écran bi ni ko euh, water drop mais water drop bi un « display la quoi écran bi la batterie jours

ak écoute bu leer naññ mu mel ni ki ngay waxal da ngaa toog ak moom maanaam demal ci Nokia bii nii kii la ñuy wax 105 batterie bi du gaaw a vide te bi neex na doo manqué réseau fenn waaw caata ngi noonu. bàyyi leen di xeeb caat. caat ci kër am na fa solo. kii ak foo mën a dem yéegal ci kaw montagne duggal ci àll foo mën a dem boo yoree kii di nga wax ak ki nga bëgg a waxal. di nga déggantee ki nga bëgg a dégganteel. te nee naa la batterie bi gaaw la jeex dama ni boo mën ngay tukki bëgg a am ñeenti fan fa nga jëm jëlal caat yor ko boo ko yore sa aaja faju nee naa la daal ak Aline Sow daal amul li ma yor xaw ma ndax naa ci mën a am portable am déet déedéet solo sa bu ñëwal ba alwaar portable fii ci mbëkkante avenue Niania saw teelal ci kaw gis fa alwaar portable dugal Aline Sow mooy chef bi gérant yaa ngi ci biir tubaar fakal la wax naa leen léegi ñi ma fi fekk dama kontaan ci ñoom bég ci ñoom kon mbokki Thiès ah jëggaani nag amatul fii la yëf yi fii la fii la mburum xoyam-xoyame fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ali saw la rek waaye yeneen téléphone dafa ñëw newoon naa leen sànq Nokia moo fi ñëw waaye nekkate Nokia mag jàng ci biir kan mooy mag ji muy Samsung ah attention qualité portable Samsung moom la sama waaj yor léegi dama koy bàyyi mu wax ma yan la ci yor yan ak yan waaw bon Samsung yi moom boo xoolee dernière tendance bi lañ leen andil quoi li ngeen xam ne fi ne moo xew xam nga ñun moom dañuy ànd ak li xew ci jamono quoi waaw kii nii boo xoolee kii boo xoolee ni ñu ko liggéeyee kii la ñuy wax A71 waaw 128 giga la RAM bi 6 boo xoolee appareil photo yi quad caméra la quoi waaw te day am macro lens photo yi day leer nañ infinity au display la boo xoolee appareil photo bi selfie bi ci kanam dañ ko percé ci écran bi waaw wide screen la tamit am quad caméra am superface fast maanaam chargement rapide la quoi waaw maanaam boo rek dans 30 minutes da ngay fessel dem seen parce que léegi nit ñi amatuñu temps bu ñuy toog di charger yenn chargé yu metti yoy quoi Wa ki moy A71 momit it nonu quoi prix yu xéwale lañ ci def quoi wa loy jënd lu ne boné Samsung sa aja faju boné Nokia sa aja faju li ma yor chargeur mi ngi fi écouteur mi ngi fi bo bëggé ciap légui mu fess légui amul damaa yàkkamti du ma charger de ndax xawma kañ lay fess ah kay.

waaw boo xoolee dañ na la on screen finger print boo xoolee dañ na la empreinte digitale bi ci biir écran bi lay nekk c'est la dernière technologie aussi boo xoolee version bi tamit ten la mais day yéeg mën nga ko yéegal quoi version 10 la mais day yéeg moom it quad caméra la moog A70 bi tamit ñoo tolloo mémoire mais RAM yi ñoo tollowul mais prix tamit abordable na quoi waaw kii moom kii ku dikk mën nañu koo jaayee 175 000 ak garantie quoi dañ lay garantie parce que li la waaw du riz fabrique du riz made fond

jarul sax garanti waaye dafa bëgg lu leer moo tax mu leen koy garantil xam na li mu yor moom xam na ne li mu yor moom macha allah. xoolal kii ma yor 64 giga xanaa da ngay dem fekk xew moo xam ne ma ngay pare 2 heures di matin nga ne naa ko ci filmer commencé 8 ba 2 heures du matin ngay filmer 64 giga nga yor du jeex du yëngatu li nga bëgg di nga ko ci am dama ni. nee naa la avec Aline Sow tout est possible fii la rek ci mbëkkante daw si leen ñëw gaaw. nee na teggil na leen yoonu Dakar bu kenn paasati di dem fenn embouteillage bi dafa bari Aliou Sow nee na ngeen yem Thiès li ngeen di wut am na ko eh mbokki Thiès fii la ci Aliou Sow